mais da ngeen ñuy wax kon yéen seen projet de société bi ngeen doon jaay Sénégalais yi gëmu leen ko. surtout Amadou Ba. waaw wala gëm ngeen ko bu fekkee ngeen gëm ko da ngeen di ne ñun kat projet de société bi ñu jaayoon ak ni ñuy doxalee ñun suñu projet de société moo gën mais tu imagines un parti comme le parti démocratique sénégalais jënd galaas mais ñii mais quand même fu ñu fu ñu jëm waa PDS parce que ñu naan ay wéy on avait soutenu mais quand tu ne gouvernes pas pas au et le PDS n'est pas ne gouverne pas parce que n'est pas dans l'attelage gouvernemental. Doudou Coulibaly eh, eh, tontu yu lañ gis mais bul fàtte tontu bi nga xam ne bi également Aminata Touré indi na ko par rapport ak euh, ñi mu jàppee ne xëy na dañoo jànnaxe opposition bu jànnaxe xamatuñ fu ñu teg seen tànk mënuñoo wax kenn fu yoon wi jaar euh, mënuñoo jàngal tamit dara euh, président président Diomaye moom itam génne na information yu bëri ah. Aminata Touré moom man dama ko yërëm. Ah, Aminata ko yërëmee. j'ai de cette femme là. xam nga ku am déception gémmiñ buy nàcc doo jàmm dañu waju baax xam nga man li ma jàpp li xam ko mooy Mimi Touré moo fi yàqul lu ne Ousmane Sonko tagg Macky tagg APR tagg PSE dëgg la dëgg tey bu tourné ne Sonko fi gën moom ak ki bu mu àndal Diomaye vous avez bien travaillé yéen ñi ma nekkaloon bu yàgg ba yéen ay traiteur ngeen yéen ay lii ay lii ah jar naa xoolaat de xam nga man li may wax man je suis dans la scène médiatique depuis 1999 di def ay déclaration di wax ku ma mun génneel vaar boo xam ne dama wax lii tey suba ma wax euh, safaan ba maa la ñaan nga publier ko man la may wax la ma wax sama waxu démb mooy sama waxu tey ñu bëri nee nañ ma yow da nga défendre projet bi ba mu toll fii nga nekk opposant ma ne leen man defendre ma projet ndax kenn mësuma dégg may wax programme Ousmane Sonko fi gën non man kenn mësuma dégg loolu man li ma def mooy dañ doon opprimer Ousmane Sonko Diomaye fay ak waa Pastef ak certains sénégalais ma défendre loolu ba mu jeex. dégg nga di baax la preuve si présidentielle yi mais ñëpp mais xanaa ku dof sax te muusoo sa calcule ngay calculer rek xam nga ni Diomaye mii avait beaucoup de chance pour remporter les élections waaye kon xanaa kon ak la ma xeex yëpp kon daan noonaa dem ranger bu sekkee man dama foroon si ñoom beneen bi ñoom bi ñu gëñ tey li tax ñu bëri fii si journaliste yi jënd glace toog si mooy ñu ngi xaar poste dinaa ñëw ci loolu de mais Aminata Touré bi bi jàpp ne xëy na am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi génn di wax président Macky Sall moo nekk ca tugal xëy na di leen wax ne yëngu leen. ah kon xanaa Bougane bi muy def campagne moom kese législative ñu kale listam mu dépensé ay centaines de millions dem def campagne ah pour rek lenn rek bu leen voteel Macky Sall kon xanaa kooku moo gore boobu moom fu mu nekkoon. boobu moom mu ngi doon utal majorité Macky Sall mais il faut que projet bi ñuy jaay mooy rupture systémique xanaa li gën a li gën a élémentaire mooy nga bañ a jël les hommes di système dugalaat leen sa biir xam nga. te loolu dafay am fintul ni mais ah yow boo jëlee ay lance Lansana Gagny Sakho nga xam ne système bi moom moo ko incarné ONAS toj fa yàq fa. dangeen ngeen fàttali nu sëñ Bas Abdou Khadr Mbacke da ko dàq tuuba ndax ñàkk liggéeyam ñàkk xarañam dégg nga Touba kooku moo ñëwaat dellu si waat par la petite porte nga ñëw yeewu suba teel ñu fal papa yaay doom nga gis kër lëmm gis village lëmm gis quartier lëmm amul kenn ku ñu fal waaye ñii daal ñii daal ñoom seen papa ak seen yaay mun nañ dem plaider leen. mais booy doon sànni xeer di wàcc ci tali bi di rey seen bopp ñoom kan moo leen di plaidel kan moo leen di utal emploi xale bu jigéen boobu ñu fal d'accord naa ñu fal ko mais nañu wan moom nañu wax pendant que xale yi nekkoon ci tali bi di xeex fan la nekkoon nañu wan photo muy suffisant nga ak vidéo xam nga man xam nga man yooyu mooy mooy bax sama xol bi c'est pas parce que moom fal nañ ko mais xoolal amul amul mbirum design la doon yëngu ah nee nañ spécialiste. waaw mais dama ne di déggoo lu ma la wax. APDA du design moo koy gérer lu moo wax lu ma xam la nekk nekk naa ministère de l'artisanat et du tourisme technicien gestionnaire moo koy gérer du designer kooku dafa xam lu xew yow ak simple actrice la woon di kooku ñëw boo ko ñëwee jox la direction mooy l'orientation de la promotion et le développement de l'artisanat yow fooyee wooñu léegi dama bëgg Juliette Zenga moom xaw ma dama dama juum Zenga si ah, doomu Jacques Habib si ak yaayam mooy mooy kii ministre des affaires étrangères nañ ñu woon photo ak vidéo ndax xeex na loolu laa wax man waxuma leneen de est-ce que xeex na booy yi doon xeex jàmbaar yi nekkoon ci tali bi. mais est-ce que bu ñu appel gis ne dafa xarañ ci mbir mi. Ah appel à candidature moom amul kooku moom bul dugg foofu. appel à candidature moom mu amoon ñu bëri ñu ngi fii yore poste du ñu yore poste génnal foofu. Ah, waxuñ sur certains postes. ma ne génnal foofu bii du appel à candidature kon du ko laal man ñi ma xamee les acteurs du tourisme et de l' artisanat non bu ñu defoon appel d'offre munu ko laal déggul ma la man dama nekkoon ministère boobu APDA agence pour la promotion et le développement de l' artisanat femme bi antanu ko xamul sax lu xew dégg naa interview <laughs> kii xamul lu xew. xamul lu xew. Aminata Touré nee nañ di souder assemblée nationale euh, loi amnistie bi di ñu xoolaat ko. xam nga loi d'amnistie bi bu ñu ko xoolaatee dañuy jëlaat Bassirou Diomaye fay dugal ci prison bi moo ko Ousmane Sonko. déedéet xam na loolu. ah lu leen génnee du amee loi amnistie dañ leen di dugalaat kon en attendant ñu koy lijjanti wala moom xamul lool wala dafa leen bëgg a piège est-ce que nit dina bëgg ba pare bañ est-ce que nit dina bañ ba pare bëgg Sonko Diomaye moytu leen femme bii. moytu leen ko nag wax naa leen ko. mais euh, nomination conseil des ministres bu mujj bi na bëri na daanaka quatre vingt et une nomination euh, dafa am naataangoo yoo gis ne xëy na dañ leen a euh, delloo njukkal ci par rapport taxawaay bi ñu amoon wala bu fekkee loola am na tamit entre guillemets est-ce que lu moo waroon nekk seen taxawaay je vous interpelle en tant que journaliste formateur. looy looy looy naataango. journaliste. Euh, waaw xam nga. bu dee wala duñ see ay naataango. bu dee nomination maam Ngor Ngom boobu de dama see d'accord xam nga lu tax. waaw bu nekkoon xereñam même bu doon moom moom bosam bu ñu ko defoon nu mu tudd voté ñi naan journaliste yi voté leen mun na ko gañ mooy bu fekkoon ñaareel bi ñu ne appel à candidature la mu teg xarñaayam mun na koo nekk boobu de. d'accord naa si waaye am na yu gën a bëri yoo xam ne moom folaa folaa la rek. Samba Biagui maison de la presse Babacar Touré. xam nga maison de la presse moom concierge la. c'est-à-dire. non du poste bi ñuy jox journaliste maison de la presse concierge la maître d'hôtel la du leneen. kon jëlee wuñ ko en tant que journaliste mais leneen. déggoo lu ma la xam nga maison de la presse la mooy directeur bi yow géral saal yi. nag affaire yi set ku bëgg du ñëw na ñëw loolu loolu loolu loolu concierge wala maître d'hôtel la toujours non tu n'es pas dans ton rôle très sérieusement sa sàmm biyaa gi sama xarit la mais man pour man booy récompenser nit da nga koy récompenser lu ko jar